jërë ngeen jëf askan bi asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen nuyu bu baax kenn ku nekk si turam ak santam di leen jaajëfal bu baax a baax si ànd bu rafet bu ngeena a ànd ak QTV ak yéen ñi nga xam ne yéen a nekk di ànd ak ñun si Q radio muy téeméer ñett tomb ñett fii si biir Kairaba Avenue ak yéen ñi nga xam ne léegi nga bàyyi seen itti ànd ak ñun si Facebook bi wala sax mu nekk si YouTube ñu ñëw indi leen xibaar yi loolu di ji nii tey ngeen si ànd ak Biram S Diop lu gën a fës ne tey jii si biir xibaar yi muy ay fan si gannaaw nag am na ay kàddu nga xam ne que rusé woon na si ñu nga xam ñoo dal di jiite muy wàllum christianité fii si biir réewi Gambia ñoom nag ñaax ne ñu nga xam ñoo dal di nekk seen rot ne naka muy kàddu yi ñu dal di ñoom ñi ñu war ko war a mun déggoo si seen fànna muy jàmm yàlla yëkkati woon nañ ko fii si biir réewi Gambia gannaaw bu ñu liggéey sotam ba léegi muy benn kuréel bu nga xamee si National Association of Cooperative Credit Union muy bépp kuréel bu nga xam ne si boppam li leen tax a mooy lebal koppar si jëmale ko si askan bi ñoom nag seen makkaan mag nag amoon neen see ñaar fukkeeli yoon ak juróom-ñeent ndaje bu ñu xamee si annual general meeting ñu ko doon defee si samedi bi weesu nag seen ab benn makkaan mu nekk fii si biir réewi Gambia ki waru mun a wan nit ñi lan ak lan moo nekk gum gaa seen wàllum yokkutee kon askan bi yii nii yeneen xibaar incha allahu rabi si lu bañ a yàgg ñu indi leen si ay yaatal gannaaw bu njëkkoo yéen si bopp xibaar yi fu ñu fas yéene ànd ak yéen muy kenn ku nga xam ne moo dal jiite muy Methodist Church bu Gambia moom la nga xam ne si mos révérend yi muy Bani Ebenisa Manga moom moo dal ñaax képp ku nga xam ne moo dal bokk si Methodist Church bu Gambia ne ñoom nañ war nañu am nag yéen jikko yi nga xam ne yàgg nañ ko xamee démb balaa tey war nañoo war a def seen kéem tolluwaay kattan pour gis ne dina war a mun a matale ngi ñëpp ñu war a mun a ràññee ñoom ñi da nekk nag si ponk muy christianity ñi nga xam ne si boppam ñoom ràññee ne mu baax ma seen wàll muy gëm yàlla ak tam seen wàllu muy déggu ak si lépp lu nga xam ne moom la nekk di def mu nekkoon nag bés bi nii mu nekkoon Easter nekkoon na bés bu nga xam ne si boppam nekk bés bu màgg la si seen wàllu muy christianity te nag loolu nag nekk na bés bu nga xamee si boppam wax ne naka da ko màggalu baax wane te ponk la si wàll muy diine christianité ñoom na ñu ko baaxoo di ko defee nag mooy dañoo dal di ñaan di jàmm yàlla di yëkkati nag ab dund di ko war jox ñeneen yi ñu nga xam ñoo nekk seen wàllum muy xarit yi te nag kàddu yi moo dal di rusé nag si kooku noonu moom référent Banny Ebenezer Manga mu ne kon nag mu ngi daal di ñaax képp ku nga xam nekk nga fii si biir réew yi Gambia nga jéem a def sa matuwaay pour jéem a ñaan jàmm gën mën am fii si biir réew mi rawatina benn kattan bu nga xam ñu war a am si lu bañ a yàgg ñu xamee ko si local government election mu ne nag bi nga xam ne nag insta allah sul ba war koo am fii si biir réew yi Gambia warugal la pour nga gis ne képp ku nga nekk nga fii si biir réew mi nga war a def sa wàll pour war a mën a ñaan pour jàmm gën a mën a am fii si biir réew mi ñu war koo mën a def si tal jeexal ko si tal continuer lépp lu nekk suñu mbébét si suñu wàll muy doxali nekkin mu ne kon nam ngay ñaax képp ku nekk fii si biir mi tam ne rawatina sax nga nekk di yëngu si wàll muy campagne mi ne na nga jéem a seet nooy war a mun a rafetal sa kàddu nooy war a mun a rafetal nag sa jëflante ak nit ñi ak nooy war a mun a moytandikoo lépp lu nekk aju si wàllum kàddu bu ñaaw te ne kàddu bu ñaaw su génnee rek fu muy dal dafay yàqu te nag dina métti lool pour nit ki war a mun a récupérer yooyu façon yàqu-yàqu mu ne kon nag képp ku nekk wàllum christianité wala fa nga nekk fii si biir mi na def sa matuwaay pour war a mun a am yooyu façon yi gom-gom moom manga mu daal di laat mu ne na ñoom ñi nga xam ne ñoo daal di nekk si wàllum muy méthodiste bi ñoom nag yàgg nañu am nag si wàllum taarix ak si wàllum jàngal ne ñoom bés bi su demee ba jot dañoo fanaane wàllum jàmm yàlla di ñaan di raglu di war a mun a métti lu lépp lu nga xam ne si boppam def ne ko moo xam mu nekk lu ñaaw moo xam ñu yëg ko mbaa ko koo yëg pour yàlla buur bi daal leen jégal loolu pour war a mun a am nag yeneen façon ngi yéen mbaande si seen wàllum kaw mu ne kon nag nekk na bés bu nga xam ne tamit léegoo la ñu daan dafa war a mun a fàttale ko muy liggéey boo rafet nga xam ne nag Jésu Christ nag defoon na ko laataa moo daal di génnee fii nag demoon barsàq muy si kaw asamaan moom Mousref Fourandi Bani Ibn Saif Manga mu ne kon nag mi ngi jéem a yaatalaat ne muy bépp yónnite bu nga xam ne moom la yàlla dal di yónni ñu bëri wax neen si wàlla muy jikko bu rafet ak may may bu nga xam ne nag yàlla buru mayoon na ko muy yéesu Krista muy Jesus Christ te mu ne loolu nag tax na nag ñu bëri nag gëm ne ne moom dafa ñëw pour indi nag muy wàllum ngërmande lu war a mun a saafara nit ñi nag seen jafe-jafe ñu amoon pour war a mun a jégal nag nit ñi wala boog sax jégalu nit ñi si seen ab tur si buur yàlla pour yàlla bu war a mun a jégal képp ku nga xam ne def nga yooyu façon yi ñaawteef mu ne kon nag màggaay bés bi mu ngi fàttaliwaat ñi ne rawatina sax mu nekk ñu bokk si Methodist Church bi ne neen def seen matuwaay bu baax a baax war a mun a fàttaliku ne bés bi bésu màgg la bési jégalu la bési ñaan yàlla la bési séddale wàllum dund bi la muy si wàllum muy lekk ak lépp li nga xam ne doomi aadama dina ko war a mën a soxla nga jéem a ñaan tam muy gannaaw bi nga xam ne nga ko muy bés bi nii nga ñaan yàlla déwénab jàmm nga daldi ko fekkee dañu ko daldi wuute defun dara lu nga xam ne moo daldi ñaaw gannaaw bu la weesoo ba léegi si xibaar itam dañoo daal di continuer yéen ba léegi si wàllu muy ista bi keneen ku nga xam ne nag yëkkati nag kàddu nag jëmal ko si ñi nga xam ne daal di topp nag si gannaawam moom moo nekk di catholique diocèse bu Gambia te nag kii moo nekk di most référend di Gabriel Mendy moom nag moo nekk catholique moom moo nekk catholique bishop bu réewi Gambia mu ne moom nag mu ngeen dalee fàttaliwaat nit ñi ne ndaxam sax ñu bëri xam ne ko ñu ba tam mu ne ko fàttali ko ne loolu moo dalee bokk na si wàllu muy ponk christianité muy lépp lu nga xam ne moom la yàlla bur bi nag dal di santaane jaarale ko si Yesu Christ ñu dal di ko def lépp lu mu dal tere jaarale ko su moom itam ñu dal di ko bàyyi ak lépp lu nga xam ne moo nekk si wàlla muy jàngat bu nga xam ne mun nañ koo jàppee ne Yesu Christ nag defoon na ko ñu dal fa sax bu baax a baax ne te loolu noonu bokk na si bu baax si wàlla muy doxalin yi christianité yi mu ne kon nag mi ngi fàttaliwaat nit ñi ne nañ jéem def suñu matuwaay ndekk bés bu si ne bi nga xamee ne jot na ñëpp war nañoo xam ne que mu bési jàng la bési jéggalu la bési jàmm yàlla la ak bési dal di wécc wante lépp lu nga xam ne moo nekk lu baax ak lépp lu nekk lu rafet mu ne kon nag mu ngi fàttaliwaat nit ñi rawatina sax ñi nga xam ñoo nekk si catholique diocèse bu Gambie ne neen jéem a fàttali ko ñoom nag am ne nag cër bu mag a mag bu nga xam ne yàlla buru may na leen ko si wàllu muy doxalin ak tam si wàllu muy nekkin te mu ne loolu nu muy demee mooy nga yéene sa mopp jàmm yéene tam sa morom tam jàmm nga war seet ne war a mun a jëmbatee pour jàmm gën a mun a nekk di am mu ne ista nag dafa nekk muy waxtu nga ne waxtu leer la te ndigam waxtu leer la waruloo def dara lu nga xam ne mooy war a mun a indi lu ñuul mbaa mooy war a mun a indi tilima si bés bu màgg bi nii moom Bishop Mende mu ne mu nga daal di sàkku baax si képp ku nga xam ne nekk na ko góom ne na nga jéem a def sa matuwaay pour war a mun a sàkku nañ ngir mande yàlla nga seetam ne war a mun a toppee lépp lu nga xam ne la dal di santaane te mu ne rasu dool neen fàttaliku ne muy Jesus Christ muy Yesu Christa moom nag am na lu rafet lu bëri lu nga def na ko si wàllu muy dundi doomi aadama ba nu mu fii dali génn naka dem bi barsàq mbaa si kaw asamaan lu war a mun a matale lépp lu nga xam ne moo nekk si wàllu muy gis-gisi doomi aadama te kon nag mu ne loolu rek dafa nekk si anam bu nga xam ne war nañ koo def mu nekk royuwaay pour topp muy jàngatam jéem a bàyyi tereem war nañ koo def mu nekk na muy wàllu muy suñu wàllu sukkandikoo kaay nga xam ne lépp loo def la ne ko sukkandiku pour nga war a am sa dëgg-dëgg si yooyu mbir mu nekk itam sa wéeruwaay pour nga xam ne loolu moo lay war a nekk di la ji gàggante yi saa yi nga xam ne moom nga nekk di def na sa soo fëgee ne yaa ngay dem si anam bu nga xam ne nag mu jaarut yoon mu ne jafe-jafe nag daf lay am wana jafe-jafe su amee neen xam ne yàlla buri moom moom moo sàkk te moom mooy dal di def lépp lu doomu aadama di war a mun a nekk di am mu ne kon nag kàddum gi nag si instant bi nag mu ngi ko yëkkale waa nit ñi ne na ñëpp boolante suñu xel ak suñu xelaat ñaan pour jàmm gën a mën a am fii si biir réew mi sànni bu ñu war a am si lu bañ a yàgg yàlla bu nekk mu def ko si jàmm bi képp ko war a jël ndam li mu jël ko si nu mu gën a mën a nekk di seddee mu ne rasu doole itam képp ku nekk julit ya mun ne rasu doole itam képp ku nekk muy christian moo xam nga nekk góor mbaa nga nekk jigéen na nga jéem a yëkkat ne sa loxo ne war koo mën a jox ñu nga xam ne ñoo nekk sa yeneen naataango nekk si yeneen façon nga xeeti jàmm yàlla bokk na si muy wàll muy islam mu nekkoon nag christianité ak islam dafa am naka diggante bu rafet bu yàgg nga seqoon nañ ko ay jamono la woon si gannaaw te kon naka ñoom nag nanguwante ne ne am na lu bëri li nga xam ne si boppam ñoo ko daldi ko seq te ne seq boobu nag mooy ñu jéem a jëmbat jàmm salaam bu nekk si diggante christian bi ak muslim bi ñu jéem a seetam ñoo war a mun a yëkkati wàllum cofeel lu war a mun a ñaanalante nga xam ne loo am mën nga koo bokk ak ku nga xam ne yow bokk ak moom wallam diine waaye dafa nekk si anam bi nga xam ne si boppam nag yàlla buur moo leen ko dal leen ko sas ba léegi rek si xibaar yi fu ñu ko continuer yéen ba léegi muy National Association of Cooperative Credit Union muy nako ji wala boog sax mu nekk muy benn kuréel nga lu ko tax a jóg mooy lépp lu nga xam ne moo nekk aju si wàllu muy leble koppar te fekk na mu yooyu façon leble kay koppar nekku nag banque waa nag ay mbootaay lu nga xam ne ay nit ñoo ko dal di sos pour gis ni dimbalante moo koy dal di lal boobu kuréel nga moo dal boot muy bopp façon mbootaay ñoom na ñoo loon dal di màggal sa ñaar fukkeeli at ak juróom-ñeneent gannaaw bi ñu ko sosee fii si biir yi Gambie pour gis ni dina war mun a indi yokkute si wàllum jëm kanami doomi aadama ñu ko doon def samedi bii nii weesu nag te nag ñëwoon nañ pour war a mën a lan moo nekk seen yokkute bu ñu amagum si seen wàllum muy mbootaay mu daldi boot muy yooyu façon ngi mbootaay lan moo nekk seen jafe ak tuñ gëm ne nag suñ ko defee dina war a mën a yombal ñu nga xam ne ñoo nekk di liggéey si wàllum muy leble koppar si seen fànn muy jëm kanam ñu ne kon nag at bu nekk su jëmee bi nga xamee jot na dinañ am lu ñu xamee si activity report maanaam lépp lu nga xam ne moo nekk si wàllum muy jaajaat si wàllum liggéey bu nga xam ne defoon nañ ko si at bu dal weesu financial report muy lépp koppar bu nga xam ne moo dugg mbaa moo génne moom moo dugg si wàllu muy laple ak moo dugg si wàllu muy am ambition si façon ngi kuréel ñoom dañ ko baaxoon di koy jàng pour seen ay nit ñu xam ndax liggéey baa ngay dem comme ni leen ko sante woon ndax demul comme ni nga xam ne noonu leen ko dal di sante si biir loolu nag muy Bintu Njaay si nekk chairperson maanaam njiit la si boobu kuréel seen board of directors maanaam ñi nga xam ñoom lañ cërale ne ñoo amee muy wàllam sàmm si boobu façon ngi doxani liggéeykaay moom nag gërëm na bu baax si képp ku nga xam ne ngi liggéey ak ñoom muy nakku gaay seen wàllu muy mbootaay bi nii mu ne kon nag loolu mooy bépp béréb bu nga xam ne fa lépp la muy wàllum koppar te fekk ndimbal si boppam moo ko tax a jóg ñoom si bopp nag liggéey neen ak ñoom dooleel nañ leen yokk nañ leen jox nañ leen lépp nga xam ne moo nekk seen wàllu muy matuwaay mu ne kon nag mu ngi jëm a dëggale ne ñoom ñu ngi liggéey comme ni nga xam ne noonu nañ ko daldi ko sante te luwaa si boppam mu daldi ko dégli muy seen luwaa bu ko daldi samp ñu gis ne képp ku daldi bokk si wàllum yooyu façon nga kuréel nga jot sa àq jot nag seen dimbal jot li nga xam ne moo lay war a nekk di la dimbale saa su nekk mu ne ñoom ñi nag am nañ yaakaar ne pour war mun a taxawal pour ñu nga xam ne ñoo nekk suñu wàllum nit nekk na suñu wàllum matuwaay moom bintu moom Bintu Ndiaye si mu ne kon nag mu ngi daal di ñaaxaat ne képp ku nga xam ne yaa bokk si yooyu birib na nga def sa matuwaay pour war a mun a fay lu xamee si annual dues maanaam at bu nekk nag muy bépp payoor bu nga xam moom nga war a fay pour nga xamee sa baat nga war ko mun a am suñu demee ba di war a sànni carte si boobu kuréel nga mun a sànni nga mun a fal mun a folli nga mun a am nag baat si koppar nga xam ne moo nekk di mu ne loolu nag lu la ko may mooy ngay fay comme ni nga xam ne noonu la ko salluwa dal la ko sant yi mu ne loolu soo ko defee mu ngi mel ni comme yaa ngi dooleel sa bopp yaa ngi dooleel nag muy bii kuréel yaa ngi dooleel tam ñeneen ñi nga xam ñoo daal di war a soxla ndimbal ëllëg si biir mu ne kon mu ngi mu mu ngi dëggalal nit ñi ne ñoom nag préparé leen pour jéem a am lu gën a xamee si training maanaam war a am nag muy yeneen façon tàggat nag tàggat yi nii mooy war mun a tàggat ñenn ñi nga xam ne ñoo bokk si ñoom rasu doole tam ñu seetam ñoo war a mun a yëkkatee muy xam-xam bu sell bu nga suñ ko defee ñoom ñooñu nga xam ne ñoo dal liggéey ak ñoom te fekk ni dalli di jël seen koppa dénk leen ko dina war a am ñoo war mun a jëriñee seen bopp saa su nekk saa yu nga xam ne nag ndimbal dem na ba di war a nekk di am foo Fodé Sagnang nekk muy boobu kuréel seen général manager bi maanaam moo dal di jiite muy boobu béréb liggéey liggéeykaay moom na moo dal yaatal ne mun a jamono ji nag am na lu toll si téeméer ak juróom-ñetti junni juróom-ñetti téeméer ñeent fukk nit juróom ñi nga xam ñoo daal di bindu pour bokk si boobu kuréel suñ ko sukkandekoon nag si ñetti weer yu daal di weesu mu si décembre te mu ne loolu nag bu njëkk na si atum 2021 maanaam mu nekk daaw jéeg mu ngi toll woon si téeméer ak ñetti million ñaar téeméer ñeent fukk ak benn kon mu ngi mel ni comme lu war a toll si ñetti junni doomi aadama ñoo dali bindu nag si at bu bees nag dali bokk si ñoom te nag loolu mu ngi mel ni comme am na lu war a toll si juróomi junni juróom-ñaar téeméer ak ñeenti nit ñu nga xam ñoo daldi bind muy daaw muy si atum 2022 te mu ne ren nag bokk bokkagul nag si boobu lim te kon mu ngi mel ni comme gëm nañ ne lool dina gën a mun a nekk di law moom mu daldi yaatalaat muy moom Fodé mu ne kon nag si wàllu muy koppar suñ ko war a mun a xayma si daaw rek muy 2022 lu amoon nañ toll si ñaari billion ñetti téeméeri junne koppari réewi Gambia te nag si 2021 mu naka daaw jéeg toll woon na si benn billion juróom-ñeneenti téeméeri junni koppari réewi Gambie maanaam mu nekk daaw kon su ko waraa a mën a xeeme kon mu ngi mel ni comme yokk na si lu war a toll si fukki fànn ak juróom-ñetta mu ne loolu nag mooy war a mun a wane ñoom nag si wàllu mooy nako ji ñu ngi liggéey bu baax mbaa si jëm kanami askan wi boobu façon yi kuréel keneen ki nag di Palis Mendy nekk board trésorier maanaam si ñu nga xam ne daal ñoom ne dénk ne ñooy war a amee mu doxale ni mu boobu liggéey suñu gën a kawee moo nekk seen jëncikati koppar wi moo ne moo dali yaatal ne mu ne suñu waree xool si lépp lu nga xam ne moo rek si wàlla muy moomeel moomeel nag mooy taabali oto yi néeg bi ak lépp lu nga xam ne moom la ñu jàpp ne si boobu liggéeykaay si boppam ñoom ñoo ko dali moom si wàllum koppar toll na si téeméer juróom benn fukki million naka juróom benn juróom-ñeenti téeméeri junni koppar réewi Gambie suñ ko war a xayma si wàllum koppar muy total assets te mu ne suñu wala seet na bu baax a baax si dépasse bu nga xam ne ñoom ñu ko jël si wala muy koppare muy boobu mbootaay war ko mën a dépasse si pour ñu war a yokk nag am ami muy boobu liggéeykaay ne suñu ko war a xëy xëy ma dëgg-dëgg si 2021 muy daaw jéeg toll na si juróom fukki million juróom-ñetti téeméeri junne koppare réewi Gambia moom leen daal di dugal nag si wàlla muy dépasse te nag loolu nag jële woon ne ko si loolu nag waaye nag suñ seetee nag daaw rek daanaka daaw yokk na ba si téeméer a juróomi millions yi Gambia te mu ne loolu nag nekk na yokkute mu nga xam ne si bopp muy bépp koppar mu nga xam ne moom lañ am si wàllu muy profit da nga ko jënd dugalaat ko si ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk di fa liggéey ak ñoom ñi nga xam ne ñoo daal di jël dugal ko si booba façon ngi fànn te mu ne suñoo seen si wàllu muy bor yi nga xam ne moom lañ lebal ay nit te fekk na fayaguñ ko si daaw jéeg muy 2021 toll woon na si ñaar fukki million ñetti téeméeri junne koppar réewi Gambia ñu ne suñoo war a seet nag bor yi nga xam ne si bopp nekk leble woon nañ ko si atum daaw jéeg muy 2021 toll woon na si ñeenti billion ñeenti million juróom-ñaari téeméeri junne koppar réewi Gambie waaye nag daaw si waaram décembre 2022 toll woon na si ñaar fukki million ñetti téeméeri junne koppar réewi Gambia ñu ne kon nag képp ku nga xam yaa ngi bokk si boobu kuréel ñu xamee ko si nakku yow war def sa warangal pour nga xam ne moo nekk si mbibit si wàllu muy lépp koppar soo ko lebee nga fay ko comme noo ko war a fay ak tam noo ko war a mën a jaaralee te fekk du war a am benn façon par parloo si yow du am tam benn façon jafe-jafe tam si ñu nga xam ne ñoo la ko dalli ko lebal te ñu ne loolu mooy war a tax pour ñoom ñu war a am nag seen wàlla muy jëm kanam ganaa bu la weesu nag ba ñu waxtaanee ñoom ñëpp lépp nga xam moo ko koppar lu ñu wax ne moom lañ jot am nag ñoom ñëpp d'accord ne ne loolu mun nañ ko bi nag dëggal ko ne jaar na yoon amut benn dëng-dëng amut benn parparloo amul tam dara lu nga xam ne moo war a tey xale nit fu war a mun a wax ni loolu jaarut yoon nag loolu mu nekkoon nag muy ndajab nga defoon ne ko samedi bi ni weesu te ñu ko defoon muy coopérative credit union ba léegi si xibaar fu ñu ko ndarkapale tey nag muy am na ab benn waxtaan ak taskati xibaar nga amoon na ay fan si gannaaw te ñu ko defoon nag muy ab benn kuréel ak compagnie mi xamee si Afrexim Bank mu nekk ab benn jëncikaay koppar nga xam ne Africa ñoo ko dale moom ànd si ak muy Oakwall Green pour ñu woon nag pour waral xamal askan bi ne rawatina mu taskati xibaar yi ne ñoom préparé nañ gannaaw xam ne ñëwoon nañ fi waxtaan ak njiiti réew mi ak seen yeneen naataango pour war a mun a seet ban façon dépasse lañ gëm la ñoo war a def fii si biir réew mi Gàmbi pour a mun a yokk muy bunti naataange ak bunti yokkute ñoom gannaaw bu nga xam ne waxtaan ba pare nag defoon na nga lu war a mën a def am nag waxtaan ak ñoom ñii moom mi di Gabriel Edgal nekka chief executive officer bi si Oakwall Green Africa Limited maanaam lépp lu nga xam ne mooy war a indi si wàllum jël ab bagage di ko war a jël dugal ko si biir réew yi Afrique mbaale ko fi génne nag yóbbu ko si bitim réew ñoom nag si boppam nag seen bibir nag mooy wax ne ne dina war a def seen matuwaay pour war gis nag Gambia dina bokk ko si war a mën a def pour indi wàllum yokkute dépasse bu baax a baax si biir réew mi te mu ne suñ seeteen bu baax a baax si diggante Gambia dem si réew mi ngeen a xamee si Brazil si nekkee ne da nga war a jëfandikoo si wàllum muy plane dina la war a jël juróomi waxtu dem ba si juróom-benni waxtu si ko asamaan bi pour nga war a dugg si ab plane te nag loolu sax léegoo léegi dafay fekk ne su nekkee yaa ngi jaar nag si plane yi nga xam ne moo gën a gaaw. te ñu ne kon na ndigam loolu am na te fekk ne fii si biir réew yi Afrique ñu ni neen ñoo dalee jëkkawante dina baax ñu war a mun a seet ñaan façon bunte am jokkalante kaay la def si mu dema dikk bi pour mu war a mun a yombal yooyu façon yi ñu ne kon nag gis neen ne Gambia nekk na réew bi nga xam ne réew mun a naat la si wàllum dema dikk tubaab bi muy wàllum tourisme ak yeneen bunte yi nga xam ne mën na moo indi koom-koom si yooyu façon doxalin ñi ne kon nag loolu nag moo tax ñoom ñu gëm si leen jël seen i alal nat ko war a mun a dugal si bi béréb moom mii di Gabriel Edgal nekk chief executive director bi si Greenwall mu nekk chief executive officer bi si Oakwall Green Africa Limited mu ne moom nag dinañ yaatalaat bu baax a baax pour gis naka ñoom dinañ préparé pour jàppale Gambia si lépp lu war a indi muy bunti dépasse bi mu ne dëgg nag wàllum Covid 19 muy feebar mbas nag amoon na fi ab doole lool lembe woon na adduna bi rawatina sax mu nekk Gambia nekk réew bu nga xamante réew bu tuuti la si biir loolu nag ku ñu xamee si Eric Monchu Itong nekk regional chief operations bu office bi si boobu béréb bu nga xam ñoo dalee amee wàllum làkki angale fii si biir réew yi Afrique sow jant mu ne moom nag mu ngi dalee wootee ne Gambia nekk ne réew bu ñëpp war a dugal seen loxo si wàllum dépasse rawatina sax muy si wàllum tourisme muy wàllum demadik tubaab yi mu ne lu ko waral nag mooy ñëw fi di di jafe lool ñëw fi tam soo fi ñëwee di nga mun a jot sa bakken di nga mun a am tam bu baax lu laa war a nekk di la jëriñ te kon ne gëm na ni bépp réew bu nekk si adduna bi war nga def sa matuwaay pour war dugal si fii si biir Gambia bànneexoo si lépp lu nga xam ne moom la daal di am mu ne moo tax si atum 2021 muy ñaari at si gannaaw ñoom na ñu amoon nag seen benn jubluwaay bu ñu defoon tuddee ko si African Collaborative Transit Guarantee Scheme muy lépp lu nga xam ne mooy war a mun indi wàllum yokkute yokkute ak yombale si wàllum dema dikk bi te fekk dafaa nekk nit mun ngaa jëlee ko sa réew jëlee fa ab bagage yóbbu ko si beneen réew yóbbuwaat ko si beneen réew te fekk du la war a indi benn façon jafe-jafe mbaa doomu aadama sax mun na moo jëlee si ab réew dem si yeneen réew si yeneen réew tam ba pare bala ma war a mun a àgg si réew bu nga xam ne moo ko tax a jóg te loo mun na koo indi yooyu façon yi yokkute mun ne loo nag nu muy demee moo ñu war a am na muy ay matuwaay yu ñoo tegee boor pour war a mun a yombal yooyu façon yi taxawaay mu ne Gambie nag dina nekk réew bi nga xam ne dinañ ko jëfandikoo nga xam ne li ko dale si South Africa muy Cape Town war dem ba Cairo mu nekk Egypte war a dem nag si yeneen bërëb bi yu bëri dina war a jaar fii si biir Gambie te si fi jaaree dina war a am nag yokkute mu war indi si walam bunti koom-koom fii si biir réewi Gambia bala mu war a mun a dem bitim réew te mu ne rasu dal itam léegoo la nekk diggante Gambie ak Nigeria dina war a mun a jëfandikoo te fekk dafa nekk benn kayit rek ngay dale fay boobu nga dal di jëfandikoo mu war laa yóbbu na si ñaari réew yu daal di jegewante yi nii mu ne kon nag loolu nekk na buntu nga xam ne gëm na ne Gambie su ne mi nga xam ne nangu na ba war a bokk si yooyu fànn dina war a yombal wàllum yokkute si bii façon njëriñ ñu ne Gambia Investment and Export Promotion Agency mu nekk GAIPA muy kuréel bi nga xam ne Gambie moom leen sas pour gis ne ñoo war a mun a amee lépp lu nekk di aji si wàllum dépasse te ne dépasse bi nag mooy war a yaxani wala muy jënd ak njaay bi si fànnam muy bagage di ko dugal fii si biir réew mi mbaa ko yóbbu bitim réew ñoom ñu war a seen matuwaay pour war a mën a gis ne Gambia dina war a siiw lool dina war a am buntu bu yaatu bi pour nit ñi war a am yaakaar pour war a mën a jël seen alal dugal ko si wàllum dépasse fii si biir réew yi Gambia te nag lool moo tax ñu ne ba ñaari banque yi nag ñu war a ñëw dugal seen loxo si wàllum koom-koomi réew mi loolu moo tax ñoom ñu ne ñu woote woon na mu taskati xibaar yi pour war a mën a am yëpp façon ndaje. kon askan bi li moo naka lu leen amuloon si xibaar yi di leen jaajëfal baax a baax si seetaan bi di leen ñaanal yàlla yàlla buur bi may leen kàttan wér ak man ba lépp lu nga xam ne moom leen jàmm yàlla si weeru koor bi yal nañu ko yàlla buur bi dal ñu ko nangul insha allahu rabbi ëllëg jàmm nekk talaata xade ko la indi leen yeneen xibaar jërë ngeen jëf ngeen si ak Biram S Diop